nguurug Sénégal jël dogal tey ji nag fas yéene yokk li nga xam se ne moo di waal bi ak essence bi ginnaaw bi nga xam ne jëruñ ji yor lépp lu jëm ci wàllum dem bi ak dikk bi fesal na ko askan wi nekkee diggante Touba ak Mbacké di ci joxe seen xalaat. am lu ñuy métti rek parce que buñ sañoon kenn du ko yokk waaye comme nag dañ koy yokk ñun mënuñ ci dara dañ ko fexee jënd mais tegul fenn parce que réew mi réew mi ni muy doxee moo njëkk a métti ba pare bu ñu bëggee li nga xam ne ñun mooy suñ tiraanga ji la nekk. loolu ñun rafetlu wuñ ko. sëriñ bi moom ñu fekk ko ci otoom muy xamle ne nag moom loole danañu ko def waaye laata nguur gi di ko def waroon na ci sédd ñooy askanu Sénégal. bu ngeen dee dimbali doomu aadama yi mënu leen kër gu ci nekk ngeen yëkkate dara dugg ci biir kër gi di leen ko jox ni leen di mën mooy li nga xamante ci la ñëpp bokk bu dee bu fekkee lii junni lay jar ngeen teggi 1000 francs wa ca kaw ko askan te noonu loolu donc laa jàpp ne noonu ngeen mën a leen kër gu nekk ngeen dimbali leen gasoil bi ngeen ko yokkee moom suñu coono dong lay nekk sëriñ bi nag moom yàgg lool ci secteuru dem bi ak dikk bi di xamle na nag moom loolee li ko waral bokk na ci jafe-jafe yoo xam se ne nguur gi am na ko bu ñu sukkandikoo nag seen kàddu yooyu nag ñi nga xam le ne loolee dinañu ko def waaye dina métti ci li nga xam se ne moo di askanu Sénégal bari na bor ma ne bari na bor bëgg bëgg koo fay ci fay ko ci ci ci kii yi rek baa doola yi rek hmm. waaw te am nañ ci jaaxle ndax sa liggéey dootu dox da boo yokkee kii tarif yi taximan taxi yi nii ñu ci bari dootu ñu jël taxi dañuy dem ci saret yi yàlla moom yokk lu ne séentu nañ ko ci lu ne baaxut dafay bëri ci kanam di ñëw mu moo koy indi yokk essence bi 80 francs gasoil bi nañ ci yokk 100 francs loole nag dinañ ko def tey jii ci bu juróom benn waxtu ci ngoon jotee